jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd geeg bàyyi xel gi ak euh, solution info ci seen émission bi nga xam ni moo di ci ngeen bokk ñu dellu seeti ànd ak imam Babacar Sylla altine bu jot altine bi ñu génn nag xam ngeen ni imam euh, teewul ba tax nañu remplacer leen ko ak euh, dialogue boobu nga xam ne moom lañ seqoon ak président Macky Sall ci mbiru troisième mandat bi mu doon wax ci Ablaye Wade dañu fàttali woon ko ay waxi démbam tey nag dinañ ñëw comme niñ ko baaxoo def indi ay point d'actualité waxtaan ci waaye xam seq ak imaam ab jataay faaw diine am ci wàll question d'actualité am na loo xam ne diine da cee xejj am na ci wàll daan ci ñëw incha allah boo àndeek dogal borom bi ñu ñëw it ci li nga xam ne mooy waxtaane imaam ñu bàyyi la nga nuyu ak internet yi ci biir réew mi ak biti réew jërëjëf asalaamaaleykum euh, wa rahmatullah euh, Serigne Chouaibou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara mhm. di nuyu groupe euh, Solution TV yëpp nuyu Sa Ndiogou nuyu Serigne Assane mhm. Euh, nuyu mboolem mbooleem caméraman yeeg technicien yi ne ci kër gi di ànd ak yéen ci liggéey bi waaye nuyu mbokk internautes yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci émission bi ñaanal leen yàlla mu defal leen tawfiq ak taysir incha allah. incha allah jërëjëf imam tey nag li ñu bëgg a waxtaanee bari na lool incha allah mm-hmm. daañu waxtaan ci. Mm-hmm. Euh, kaddu yi euh, Serigne Moustapha Sy mi nga xam ne moom la ñuy tuddee si Moustapha Sy Jamil defe naa am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ci wàllu diine am na loo xam ni faaw mu yitteel bi nga xam ne bëgg naa xam ci wàllu njaaloo dinañ ci ñëw ci àtte boobule dinañ ñëwit ci arrestation yi nga xam ni gis nañu bari na lool fii ci biir réew mi naka noonu euh, événement bi nga xam ni avant ñu fi euh, bàyyi ko amagul woon muy événement Sonko beeg la ca dal ak yooyu yëpp incha allah daan ci ñëw. tey nag li ñuy njëkke muy point diine bi dañu waxtaan tuuti ci koor bi nga xam ne incha allah jàpp naa ni àllarba la su ma su ma su ma juumulee alxamis mm-hmm. léegi nag dafa am soxna su ma yóbbante mm-hmm. nee bi mu amee doom ak léegi yàggul mm-hmm. te moom dafa amam xemmemteefu woor te doomam amagul ñaari weer muy laaj ndax diine da ko obligé pour mu woor wala ku doomam am ñaari weer mën naa woor jërëjëf euh, sëriñ Chouaïbou ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ñu dugg ci koor geeg alhamdulilahi rabbil alamina mm-hmm. ñaan ñu itam ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim mm-hmm. ñaan it mu may nu nu génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamina mm-hmm. wax na dëgg su fekkee bi mu amee doom yàggul de day nàmpal rawatina kuy toll ci ñaari weer ak ñett du obligation ci moom que mu woor d'obligation waaw ah, du obligation ci moom mu woor mhm. su nattee nag def na mën na woor mhm. te du lor xale bi mhm. na woor su fekkee gis na ne bu ko wooree mën na lor xale bi mbaa mu loraale boppam moom ndax période nampal dafa metti ci jigéen rawatina bu xale bi amagul six mois su xasee am six mois nag mën nga woor boobu jamono xale bi day commencer mën a lekk dara mën nga organiser sa bopp ba bu la neexee muy nàmp guddi bëccëg yi nga di ko defaral ñam. Mm-hmm. mais liiru ñaari weer ñetti weer kooku mënagul lekk ñam. Mm-hmm. kooku su waxee ne moom du woor diine nangul nag ko. Mm-hmm. mu dagg kooram bu koor gi jeexee mu fay. waaye nag na lele. waaw na lele ah, ah, na lele kay. ah même ku ko def loolu diine du ko pardonné ak règle bokkul ak règle. déedéet da ngay lele bokkul ak règle règle moom ki ko am bu paree day fay rek mu jeex mu génn ci. walla moom mu fekk deret wasinam setagul. bu en direct ji fay euh, setagul. waaw du lele. setagul du lele. du wóor du lele parce que dafa am deret mhm. waaye nag bu koor gi jeexee day fay bés yooyu mu wóorul woon parce que dafa dese woon deret ah. su fekkee deretam set na nag waaye day nàmpal mu ne munu ko boolee koor dañ naan ko bismillah parce que bugguñu laa lor bugguñoo lor sa njaboot. Mhm. waaye nag su koor gi jeexee na nga fay ko bés yi nga ci am su dee weeru yëpp nga fay ko yëpp waaye nag nga lele. ànd ak muy fay yëpp day lele. ah nga lele de. lele gi lu muy doon. lele gi mooy da ngay joxe lu suur doomu aadama bés bu yàlla sàkk bés boo woor rek bu ngoon jotee nga génne mudd. Mhm. jox ko benn doomu aadama. Mm, natt ko ci kilo. Mhm. wala loo xam ne mën nga koo xayma ci xaalis. Mhm. bëccëg boo woor xamal ne bés boobu mën nga ko joxe ba baa muy jeex. d'accord incha allah. macha allah kon yéen ñi nga xam ne yéen ma yóbbante woon ci lool ak ñi mu concerné itamit euh, laaj baa ngi noonu mm-hmm. léegi nag bala ñoo doon dem ci actualité bi ba léegi mm-hmm. lu jëm ci wàllu borosu itam faaw ñu waxtaan ci mm-hmm. euh, imaam am na ñoo xam ne nee nañu boros da yàq koor nga xëdd ba pare borosu wala sax nga yeewu ci bëccëg bi daal di borosu ndax day yàq koor waaw boros du yàq koor mais pat lañuy wax pat ah. waaw pat bi ak boros bi du benn waaw pat bi ak boros bi du ah d'accord boros nit mën naa woor ba bëccëg. Mhm. mu yëg ne gémmiñam dafa am benn ah. sëcc. Mhm. mu jël boros bi ak ndoxu kese boros gémmiñam ba mu set. Mhm. wala mu xëdd ba pare jël boros bi boros gémmiñam ba mu set amul problème waaye nag boo ci defee pat. pat bi dafa am liquide bu ci nekk. mante la sax nag. boo ko yëgee da nga yëg ne benn mante mi ngi ci. loolu boo ko borosoo fekk xëdd nga ba pare wala bu ñu salaatoo boog. dafay dox di dox sa làmmiñ bu yeggee ba ci sa put loolu day yàq sa koor hmm. moo tax ku woor fajar diggante fajar ba jant bi so du patu du patu du patu hmm. mais bu dee boros bi nag defoo ci dara hmm. boros la rek comme soccu lay nekk su boobaa moo tax li gën mooy ki bëgg a patu na patu avant salaatu waaye bu ñu xasee salaatu ba pare nga xam ne léegi fajar jot na. Mm-hmm. boo ci defee pat def ko sa gémmiñ dañ lay compter comme ku lekk mànt mm-hmm. ndax liquide bi ngay lekk liquide boobu day yàq koor te boo ko xasee borosu mënoo fexe fexe ba du jàll ci biir. Mm-hmm. boo ko yeblee caf ka mànt yi ak ndox yu sew yi day jaar ci trait yi ni ci làmmiñ yi jaar ci sidit yi wàcc ci baat yi. te yàq koor waaw lu jógee ci bët ak bakkan ak gémmiñ ak nopp bu yegsee ci put. Mhm. koor gi yàqu na duñ xaar sax mu yegg ci biir bi bu mm. yegg see ci put gi yàqu soo ko sentiree ci sa put rek boo ko ci put gi rek yàqu na yàqu na te mën nga ko bañ a sentir sax nag mm. mën nga ko bañ a sentir te yegg na fa ndax fi muy dox day sew mm-hmm. bu tuutee bu tuuti doo ko yëg te fekk jàll na ba pare mais pat moom foo ko patoo bëccëg par la force mant bi dina jàll ci sa put mm-hmm. boo ko yëgee ak boo ko yëgul mant bi day jàll mën na bañ a jàll ci saa si mais day dox ndànk par ndànk ni ngay toogee di sentir sa gémmiñ benn sedd loolu temps boobu mën na def ci sa gémmiñ ay waxtu yu bëri temps boobu yëpp dafay dox jëm ci sa put d'accord waaw su taux bi bëriwul nag doo ko yëg lu ko différencier ak soccu parce que am na soccu du wex waaw soccu tamit dañuy tere bu tooy bi bu tooy lu tax ñuy tere socc bu tooy bi liquide bi hmm. moo tax ñu bëgg aji woor ci bëccëg na na soccoo socc bu wow d'accord ndax boo soccoo socc bu tooy la tooy ci socc bi da ngay defee ne sa tiflit yi la yow say tiflit boo ko wannee amul problème mais ndox mi ci socc bi bokkul ci yow boo ko wannee day yàq sa ko moo tax ñu ne bugguñu aji woor di soccoo socc bu tooy ndax soccoo socc bu wow te boros bi tamit boo ko seetee lu wow la ko defee moom kese boo ko bombee say bëñ bu fekkee da ngay yëg ne sa xetu gémmiñ mi ngi lay sonnal nga boros gémmiñ bi bàyyi mu jàll macha allah jërëjëf imaam nga baal ma bu ndaw rek. soo ma ko ma def ko ci masala bi nu fi jaarale woon bii passé waaw bii jëloon nañ ci. ay sàcc ay jëloon nañ ci sàcc ay. ma joxe woon benn exemple ci benn téere bu tudd Qurratul Uyun. borom mhm. moo doon traité masala. Mhm. góor bu toxal ayu jabaram yóbbu feneen sàcc ay rek. waaw wax ci ni mu nekkee mooy yàlla te muy lu wér. Mhm. ba sévère yegg ci ne même day yàq ak imaamam gis naa tex bu dindi ne du yàq imaamam. gis nga beneen texte. waaw ban téere ban téere moo ko saxal. mooy ne qurratul uyun. moo ne góor bu toxalee ayam. Mm-hmm. yóbbu ci beneen jabaram. Mm-hmm. mooy na yàlla maandu teem daanu na. Mm-hmm. dootul matati imaam. qurratul uyun nag gis naa yeneen i. Euh, texte yoo xam ne bi muy indi shurutul imaam. boolewu ci adaala bi dindi imaama. Hmm. kii sàcc soxnaam. am na ay wuute yu ci am daal am na wuute nag. te jàpp naa ne texte boobu tamit euh, su ma doon jàpp moom laay jàpp man. Mhm. ndax gis naa ne yi mu indi ci ay tegtal mel ni ne moo gën a dëgër bële même bu dee bind nañ ko. d' accord waaw loolu tamit bëggoon naa ko. loolu moom ak maandu te la imaam du borom xam-xam yëpp du ñu defee nii nga defee dañuy jàpp benn pàq rek. Mhm. ni fii la. kon yow bi nga paree gisaan nga benn téere yu indi leneen. Uh-huh. nga gis ay tegtalam dëgër ne mën na bañ a daaneel imaamam. d' accord jotewul dara voilà. allah mais nag mooy imaam kon ba léegi nga baal ma ko ba la ñoo mhm. génn ci lool rek ndax comme dañu jëm ci koor dama amoon mbokk moo xam ne moom mosoon yàgg na mais damay gis fu xëdd jotee rek. Hmm. Euh, ci jamono boobu damay gis bu noddoo rek mu dem sangu ji bés ñuy waxtaan mu ni ma euh, nit bu fanaanoo maanaam bu fekkee ni dafa jaxasoo soxnaam ñu euh, salaatu mu yeewu balaa dem xëdd. Hmm. pour sa koor nangu da ngay dem sangu ba pare. nga indil ñu foofu kuy <laughs> imaam ak leeral parce que man tamit loolu. du loolu laa xamoon. léegi ndax nit ki bu jaxasoog soxnaam. ci guddi hmm. daal di tëdd. bu yeewoo balaa xëdd day dem sangu ba pare pour kooram valable wala. <laughs> déedéet. <laughs> janaaba bi nga takk jotewul ak sa koor gi dara mm-hmm. janaaba bi nga takk mm-hmm. da nga ko takk avant ngay woor mm-hmm. moom ak nit ki dem fee takk ay cabinet ñoo yem ak nit ki dem fee saw bon tuur ndox te raxasagu ko ñoo yem sobe bu la takk la kooku amul accès ci sa koor gi fenn la doon garaawee mooy ci biir bëccëgu koor gi nga sëy ci ah. loolu moom da koy yàq mais ki nga xam ne ci guddi gi la sëy ak soxna mais loolu légal na nga yeewu waale janaaba mën nga xëdd julli rek nga ci munta def mhm. waaye même bu ñu salaatoo te sangoogoo du yàq sa koor alhamdulilah waaw boo biddanti woon sax yeewu huit heures neuf te sangoogoo du yàq sa koor da ngay dem sangu julli sa suba dëgg la biddanti bi baaxul hmm. mais amul benn benn yàqute wala benn wàññante bu muy def ci sa koor gi nga xam ne dafa fanaanoo ba hmm. te sanguwul fekk salaatu nañ ba pare hmm. amul benn impact ci koor gi macha allah du ci dara jërëjëf jërëjëf imam Babacar Sylla jërëjëf mbokk yi kon loolu la indi woon muy ay laaj incha allah xam naa ni euh, euh, fii ak ñuy ñëwaat fekk ñu dugg ci koor gi nag dina gën a dugg ci laaj yi naka noonu ñu ngi leen di jox euh, ak dik imam mi incha allah dana fi amal ay tafsir incha allah ci diiran weeru koor yi di ngeen am incha allah dundu tafsir eh, naka noonu ay laaju diine ay waxtaanu koor incha allah. imam parcelle woote woo gars yi woote woon nañ. waaw eh, ñoom uh, Ousmane Sonko ak Ahmed maanaam waa yeewi daal. mobilisation bu doy waar. Mm-hmm. ba ñu xëyeet ñu dàbbali ko ci quatorze raisons yi donte ne amoon na xeex. Mm-hmm. le seize bi ñu Ousmane Sonko xëy war a wuy ji. Mm-hmm. ba léegi la amoon amaat maanaam ñu dogaale ko fañ ko dogaale woon. daan ni boucan dafa am ni ko coppet yóbbu. léegi boo jàngatee li xew ci événement ci ñetti fan yooyu yëpp ban hmm. jàngat lay doon waaw jàngat bi am na ci loo xam ne mën nga wax lépp politique la nag ba mu jeex tàkk lépp waaw tàmbalee ka la quatorze la quinze ba la seize lépp ay stratégie politique la hmm. amul leneen lu ci rax hmm. euh, yeewu askan wi benn coalition politique la buy politique sentir na ne ñii ne ci nguur gi dañ leen a bëgg a tere seen candidat bokk 2024 ñu mobiliser wu pour wane seeni force wane ne ñoom tamit dara mënul dox seen diggante loolu yëpp ba léegi lu legal la ci réew mi parce que ab parti politique dafa am sañ-sañu di woote ay rassemblement ay manifestation loolu lu legal la lu waaye may nañ ko mhm. moo tax bi ñu ko demandé may nañ leen ko def nañ fa seen démonstration de force euh, nit ñi gis nañ ne am nañ toole mën na am sax ñoom ñooy premier puissance à part nguur gi boo xam ne ñoo fi def face mhm. ba nga xam ne bu nguur gi di tiit ay élection wu ëllëg fi mën a jële ñoom lay doon. Mhm. le quinze bi tamit gis nañ manifestation yu wuute ci ay gox am na yu nu autorisé am na yu nu. autorisé wul wul. Mhm. yi nu autorisé nag. Mhm. amul benn problème. waaw waaye yi nu autorisé nag yëpp am problème loolu nag war nañ ko jàngal. kon dégguma la de yi ñu autorisé. yi nu moo am problème amu ci ah, problème am amul a tàkku fa xeer jógu fa dara xew fa. yi yëpp. waaw yi nu wul nag. yëpp am désordre. wax nga dëgg de. léegi nag mu des kiy tere manifestation li taxoon mu koy tere da doon wax ne. Mhm. dafay bañ ay perturbation am. waaw moo tax mu koy tere. Mhm. trouble de l'ordre public. waaw mais bu ko teree ci lay am te bu ko terewul du am. Mhm. mais ah, loolu trouble de l'ordre public bi ñuy bañ. Euh, buñ ko teree mu am. waaw te montant buy tere naan daw trouble de l'ordre public mooy tax mu tere ko. mais bu ko teree ci lay am moom mais nañ dëpp loi bi. moo tax tere manifestation exception la war a doon juin bi mhm. cest dire loolu moo war a nekk dernier mot mhm. mais jàngat yi loolu sénégalais boo laaj bu dee honnête na mu wax la dëgg mhm. manifestation bu ñu interdire mu ëpp danger bu ñu interdirewul bu ñu interdire waaw d'accord toujours bi ñu autorisé danañ ko def ba noppi dem seen yoon ñëpp ne ci jàmm mais bu ñu ko autorisé wul rek même bu doon ñaari pëna sax dana am tuuti conséquence man nag jàpp naa ne loolu war nañ ko uta am na solution sax dañoo toppul solution bi parce que solution bi moo taxoon. ñu def ko mu nekk droit constitutionnel. pour bañ ñu xañ ko nit ki. mais ànd ak loolu yëpp souvent bu neexee préfet yi bon duñ ko topp. Mhm. loolu nag lu ñu war a seetaat la bu dee yow ordre public bi rek nga soxla. Mhm. te nga gis ne autoriser ko mooy jàmmi public bi. Mhm. autoriser ko ñu def li ñuy def mu jeex mu dem. d'accord soo leen autoriser nag ñu def fa safaan sañ ngaa woo ña signé. ne leen yeneen responsable yi ñett ñi ñëwoon signé nañ lépp lu fa xew ñun la engagé. Hmm. bàyyil manifestation yi jeex nga yónnee leen convocation. Ah. ñu waaxu ndànk ñëw. Hmm. nga jël charge yi yëpp yan leen ko. Ah. mais ñay taali pone yow ñooñu bu sa yoon nekk kii moo signé nee na man ma engagé lépp hmm. <laughs> bàyyi leen manifestation bi jeex. même bu ñu fa nekkee di xeex fexeel nga tàqale rek ba leen ñu dem. si bu ñu paree xoolal ñi signé woon nga woolu leen ñu ñëw. <laughs> dina dëgg de parce que ci seen ndodd lay gàtt voilà moo tax après doo xam ndax ñoom topp luwaa bi moo leen gënal wala wane kilifteef bi moo leen gënal d'accord <laughs> léegi ci biir loolu ba la ñëw ci bésu le 16 bi euh, gis naa ci même bés it Dakar dañ koo bañal maanaam Dakar autorisé wu ah, mais raison yi am na yu tànn mel ni Touba bi ñu bañaloon nangul nañ leen. Mbàkke def na. waaw def loolu amoo ci jàngat. le fait que ñu aayee Dakar ni fële moom. waaw parce que xam nga dakaar ñoom dañ jàpp ne Sénégal bu doon nit ndakaaru mooy bakkan bi boo ko fattee rek mu di <laughs> loolu moo tax mooy ndakaaru moom yenn yi bul xalaat ñu la ko fi autorisé waa parce que dañ jàpp ne ndakaaru foo xoj rek hmm. mooy maîtriser nga réew mi yëpp te effectivement noonu la demee parce que lépp réew mi dañ ko concentré wu Dakar hmm. si ba fii tàkk fu feneen tàkk lu mu tàkk-tàkk du def benn impact ci réew mi mais bu Dakar tàkkee rek day mel ni Sénégal yëpp a tàkk dëgg la looloo tax Dakar moom bettul kenn. si biñ ne autorisé wuñ ko bettul kenn. wallaay dëgg nit ñi dañu continuer xam ne nii la mënoon demee. Mm-hmm. léegi nag Ousmane Sonko xëy na le 16 bi euh, ñu bari jàppoon nañu sax du wuyu ci. Mm-hmm. ndax nee na woon wóoluwul avocat bi ko war a àtte am nañu wax ba ñu daal. kii mm-hmm. Mame Mbaye Niang la. mais xëy nañu nag. Ousmane di wuyu ji. ñu bloqué ko ci rond point bi ba yàgg ñu ne mënatut a dem il faut ñu dindi ko ci otoom. ba foqarte am na ci ak Guy Marius Sagna ak euh, acte bi mu ci def ak yooyu. ba ni nga déggee ne après euh, maître Clédor dafa xëm moom itamit amee na tawat ba mi ngi tëdd ci clinique ci waxtu wii. boo ci doon def benn jàngat ak ci santé wu Ousmane Sonko ndax tiitoo ci mbir yi. Euh, tiituma ci nag ndax dafa mel nii li xewoon rek mooy xewaat. li xewoon Sénégal dafa tàmm heure bu ay élection fokk mu am ay tension 2000 noonu la woon 2007 noonu la woon 2000 2011 2012 noonu la woon 2019 mhm. bi kadalika gis nga ren ji même législative yi passé locales yi sax xawoon na am ay yëngu-yëngu mhm. mais yii nu jëm nag dafa mel ni dafa gën a sérieux ndax moom dafa des lu ma un an mu mel ni affaire bi dañ ko déclenché tàmbali na xaat. Mhm. te jàpp naa ne lu mënoon a ñàkk la. si procès diffamation ci ñaari nit. Mhm. mais ampleur bii mu am dafa. vraiment dafa jéggi dayoo man mhm. jàpp naa ne. jour boobu Ousmane Sonko mënoon na dem wuyu ji te dara du xew. su fekkoon ne neex na neex na neex na nguur gi fi nekk. Sonko mënoon na wuyu ji. dem ñibbiwaat këram. Mhm. wala bu dee dañ koy àtt ñu daan ko ñu daan ko te dara du xew. vraiment ci kaw nag. Mm. mu fekk loolu rek moo leen ñor mais bu fekkee nag defanteeg Sonko moo leen ñor moom mënul woon nekk te dafa mel ni loolu moo feeñ la 16. maanaam wuy ji yëkkatiwu leen woon. waaw non mooy waa ji foog ñu jëfante ko. wane ko ni ko mën nañ la coppet. waaw yóbbu la te xaddu dam comme dégg nañ ne mi ngi menacé di wax ay naan kenn du ma utal yoon kenn du ma nàngam kii foog ñu jëflante ko. cest à loolu moo feeñ ci ni mbir mi di doxee mais affaire loi moom feeñatul sax. Mhm. ñoom seen diggante lii ñu def mbiru loi nekkatu ci. mais mbiru defante moo ci nekk mooy kii day dëgër bopp ak ñun. Mhm. kii daf ñuy wan ne nii la toll danañ ko wan ne ko état kenn du xeex ak moom. Mhm. c'est-à-dire ci logique boobu daw la ñu nekk loolu ñu wax ko. ñu bañ ko wax ci loolu la ñu nekk donte jàppoon naa ne mënoon na bañ a demee noonu. parce que Ousmane Sonko c'est un politicien. bépp politicien buy politique. te doo def ay discours yu tàng. yow sa politique bi doo dem fenn. dëgg la politicien day show loolu dafa yàgg am ci politique. Mhm. Abdoulaye Wade jaar na lu nekk def na ko. Mhm. kazaalika Idriss Seck bi mu ciy toll. wallaay président Macky Sall mi bi mu ciy toll. Mhm. c'est-à-dire politicien ak discours bu show ñoo ànd. léegi nag bu fekkee sa waaye heure bu defee discours bu show nga wàcce armée beeg. takk der yeeg yëpp du sotti. vraiment c'est-à-dire Sonko benn nit la xam nga ne bu lancé état ne leen na. du ma def nangam. waaw du ngeen ma tànnal fu may jaar gëm ba wàcc ba pare ni damay ñibbi nag daa pare woon pour ñibbi. voilà damay dëpp ñu ne ko doo dëpp. waaw ah, vraiment mënoon na ñàkk man gis naa ne bi mu génnee di dem. Mhm. mënoon nañ ko bàyyi mu dem donte nag am na ñuy wax naan. Mhm. moom tamit wuyu ji dong nee na yor na rapport bi wuyu ji dong. Mhm. lan la ci mobiliser. benn politicien buy politique jàkkaarloog adversaire am boo xam ne gëm na ne am na influence ci àtte bi ñu koy def. te loolu kenn mënu koo dindi moom koy da nga naan. d'accord nga ci wala d'accordoo ci. Mhm. mais nguur gi dafay am influence ci ni àtte bi di doxee rawatina àtte bu jëm ci Ousmane Sonko. Mhm. léegi nag yow boo xamee loolu mais fi nga mën a amee doole ngay wut mooy say militant ngay woo ñu gunge la. Mhm. mais loolu lu waa terewu ko. déedéet ñun liñ fi fekk yëpp bépp politicien bu am dayoo bi mu am. bu buñ la masaana woo say militant dañ lay gunge. munoo woo ab politicien nag. Mhm. ba pare ne ko benn militant du la gunge changement bi loolu mënul nekk. président Macky Sall bi ko fi Abdoulaye Wade convoqué. Mhm. Sénégal yëpp dañ ñu ko doode mbàyyi ñu fi. militant yi ko gunge. Mhm. waxuma militant yi kese de. journaliste yi ko doon gunge ñoom ay sympathie lañ woon ci moom. dëgg la te loolu léegi benn journaliste yi ñemee. Pape Alé mi sax ci lañ ko doon wax naan Macky Sall lay liggéeyal. dañ doon <laughs> ni nguur gi di nootee opposition bi. Mhm. presse bi dañ ci daan duut baaraam naan lii c'est pas normal tey benn presse sañu ndax boo ko waxee ñu ne la ah yow ah yow pro Sonko nga su ko defee nga daal di commencé waat taxaw ne man boo nekk lu ma ko fii cest à pour man nag loolu jaaduwul ab nguur bu demee bay jaay doole aw nit. Mhm. dafay baax am ñu taxaw naan jaay doole gi jaaduwul mais sooy bu ko xam ne amul lu dul aw làmmiñam kenn du ma jaay doole mais da nga bëgg dem wuy ci mobiliser sa mbooloo ma ñëw xàllal la tali bi yëpp. vraiment parce que oto bi ni ko woon coppee dem ak moom. oto boobu mënoon naa xaal. wallaay maloon na saloon na yoon bi yëpp. Mhm. nii may leen ko ñu may ko mu jàll. d'accord oto yi fa fekk dix minutes yi ngay taxaw quinze minutes trente minutes yi ngay xàll yoon bi mu jàll du la wàññi dara. Mhm. te su boobaa dinañ dem ci tribunal ci jàmm. mais problème nu kay mooy ne dañu fii laay jaar ñu ne ko fii ngay jaar. waaw man jàpp naa loolu lépp mënoon naa ñàkk. Mm-hmm. moo tax dëgg la bu fekkee Sonko dañ ne amul rapport bi. Mm-hmm. moo tax mu ragal a dem. Mm-hmm. dañ naan Sonko amul rapport bi moo tax mu ragal dem waaye léegi yow xam nga ne amul rapport te bu ñu ko woowee dix heures. bu ko fa dix heures fekkul. dañ koy teg ay daan. Ah. yow looy yàkkamte yow da nga bëgg ñu tegal la ko ay daan. ok xam naa li wax da nga bëgg ñu teg ko ay daan. waaw ah. sooy bu ko juge bi ne dix heures na nga ñëw dix heures bu ñëwee day àtte bu ñëwul day àtte te am na conséquence ñu teg ko ay daan. ci tardé bi mu def yow bu koo tardé lu sa yoon bàyyi ko bu meeting bu ko neexee. su ko neexee na xëy sax dem Thiès juste bi moom 10 heures la wax ak moom yow bu sa yoon nekk ci lu mu nekk. l'essentiel bu tardé yow li nga bëggoon ci moom da koy koy teg ay daan. maanaam ñoom su ma la déggee waruñu dem këram jéem koo jëlee di ko accompagner. di di barricade këram comme comme convoqué nañ ko rek bàyyi ko convocation. waruñu woon barricade këram waruñ ko woon a baare ne ko doo dem parce que barricade kër gi dafa jiitu dem bi la veille ñu ne suba la war a dem guddi gi nga ñëw baare site bi yëpp ne kenn du dugg. mais sëñ bi loolu bokkul ci procès bi. d'accord loolu normalement day tiid wane ne. naru ñoo maandu ci diggante ñaar ñii di àtte. mais xam nga yaa ngi tudd rapport yi tamit mais imam rapport dafa garaaw. léegi nag boo nee léegi rapport a ngi nii. Mhm. ñun la foo jëlee rapport. xam nga yooyu ay conséquences yu taxaw mooy Sonko bu ne am naa rapport léegi Mame Mbaye li muy xaar ci moom li ñu bëgg mooy na génne rapport léegi su génne rapport bi nag ñu ne ko léegi ah, jàpp naa ne waruñ koo laaj foo ko jëlee. ah ci mbir yi la bokk de. waaw nee nañ ay boo rësal document. xaw ma ah, waaw mais loolu. loolu su fekkee loolu lañ bëgg a wax. <laughs> kon lu tax ñu di ko laaj mais sooy bu noo may laajee loo xam ne waruma koo génne nga di ma ko laaj. Pape Alé mi li ñu ko téye yu mel noonu la léegi lii nangam léegi anam foo jëlee yi nga wax ni foo ko jëlee. waa léegi kon su boobaa déli la ñaar moo mën a nekk. Hmm. ñu ne rapport amul. waaw ñu xam ne rapport amul. Hmm. mais su dee rapport am na. Hmm. et effectivement rapport bi dafa épinglé ma Mbaye bu dee loolu am na. laa wax ne Mame Mbaye moom dégg naa ci kii ne rapport bi am na. waaw léegi naa ko ci absor bi am na waaw te xaalisu sénégalais yi la hmm. te nee nañ ak nuubal moo ca nekk te ñoom xam nañ ne rapport bi am na mais léegi bu ko ko waxee lu ñu ciy woolu yow xam nga ne rapport bi am na mais warul génn hmm. bon duma wax ne warul génn sax daa war a génn mais génne wuñ ko ci misaal parce que sénégalais yi ñu yor seen xaalis vingt neuf milliards hmm. ñu jox ko benn nit mu liggéey ci ñu ne rapport amul pour man looloo gën a garaaw sax rapport ñàkk am ci ku ñu jox vingt neuf milliards Ibrahim Seck na trente six milliards trente sept sax ñu ne la loolu amul rapport mais sooy bi loolu moo gën a garaaw ji am réew. dénk la ay milliards nga pare amul rapport kenn xamul li nga ci def jaar na yoon. wala jaar maanaam amul trace daal. loolu moo gën a garaaw rapport bu am sax léegi nag bu fekkee rapport bi am na mais kenn waru ko génn parce que déclassifié wuñ ko. Hmm. su boobaa buñ ne ko andil rapport bi. Hmm. wa illaa buñ ne ko indil rapport bi mu andi ko ba pare. Hmm. amatoo droit di ko daan. lu tax nga di ko daan mooy dafa feeñal ak càcc goo xam ne. ñun la ñu sàcc suñu alal mu feeñalal ñu ko da ngeen ko war a encourager. Mhm. su fekkee gis nañu rapport bi ñoom te xam ne rapport bi moom waru koo yore kon buñ ko ko laaj mais nañu gëm ne li mu wax am na ñu bàyyi noonu mu sedd. d'accord mais daal su ma doon moom su fekkee rapport bi yor naa ko. ñu mhm. tuddee ko recel document ñu tuddee ko lu mën a doon. Mhm. danaa génn rapport bi ne la ko bëcc boo ne ma recel document man la yaa ma ko laaj. d'accord foo ko jëlee man la ci internet bi laa ko jëlee. ah internet ah, imam ci mbedd mi. waaw léegi li ko fa yóbbu la ñu war a lijjanti mais buñ lijjanti ki ko for d'accord man su ma fekkee yow nga jël fii bagage solution wadal ko ci mbedd mi ma for ko lu ko fi génne yóbbu ko ci mbedd ma la ñuy lijjanti mais man mi ko for kay man dama for rek ñëw indi la d'accord mi ngi nii suñu alal la jël nañ ko moo ngi nii pour man loolu mm-hmm. mënoon na bañ a am coow loo xam ne jaaral fii doo jaar fii ne la coppit yóbbu la ci koo xam ne sa dem nekkuloon obligation. léegi ak jagat yaramam gi ñu koy jiiñ naan dafa am lu ñu ko sotteek. lu ñu ko xëpp bay def ay capture d'écran naan waa jiyee ko sotti leeg ko xëpp lii ndax dangay ngay ak ñoom ci daa am lu ñu ko sotti grenade yi la wala. ah en tout cas day lii ñuy tuddee état wu Sénégal. Mhm. état wu Sénégal wala régime yi fi jaar yépp mhm. dañ leen a tuumaal ne ay bandi lañu. Mm-hmm. te ñoom ñoo koy wax seen biir li tax ma wax ko mm-hmm. Idriss Seck bi ñu koy convoqué lool la waxoon waaw feebaruma nangam nangam wax yëpp déclaré yu bari am na luñ ko nar a def ci biir waaw waaw Idi moom waxoon na loolu daal lu ma dal ñooma mm-hmm. à chaque fois boo amee problème ak régime bi rek li ngay njëkk a firndeel nit ñi mooy maa ngi nii feebaruma lu ñu ma def nangam nangam lu tax nit ñi di ñaw njorte am na lu ñuy defaate foofu surtout léegi dafa am ay xeeti dee yoo xam ne boo amee du leer mukk gis nga affaire Fulbert Sambou mooy ñaari gendarme yooyu mhm. kenn ki ba léegi kenn xamul dee na kenn xamul mu ngi dund mhm. kenn ki dee na waaye kenn xamul lu ko rey ba léegi mais am na ku bokk ci ñoom nee na dañ leen rey muy Susan. Susan Camara waaw ba léegi tey kenn woo loolu ma jaaxal mhm. te gis naa ko bind page Facebook am ne xanaa kay sama frère bi reyuñu ko mooy Fadilu mhm. ñu jàpp ko tëj ci laaj bi mu laaj ne xanaa du dañ ko rey mhm. kee moom ne dañ ko rey ñu bàyyi ko fa parce que xëy na moo bokk ci nguur gi kii bokkul ci nguur gi waaye bi na xam nga loolu du am réew loolu du justice donte man d'accord naa ne Sénégal moom ñi gëm ne justice am na fi man ñooñu laa amal problème man aw ma problème mu ñu naan justice amu fi man dama mosul gëm ne Sénégal am na justice amu loolu sëriñ Cheikh bi mu ko waxee yàgg na nee na waxal ne réew mi lu nekk ngi fi ba mu des hmm. justice amul ci réew mi hmm. gis nga dossier Mame Mbaye Niang bi hmm. ak dossier Adji Sarr bii ñuy toppee Sonko te Sonko gëm ne bu demee danañ ko condamné waaw nee na wóoluwuma justice bi waaw waaw gis nga ñaari dossiers yi ak les mêmes juges su yàlla defee ñu dem ba deux mille vingt quatre bu Ousmane Sonko nekkoon président le même dossier les mêmes juges dinañ ci tëj waa Benno <laughs> sooy bi loolu kenn mësu koo gis <laughs> donc dossier yi ñu toppee Sonko te amul ku am sikk sàkk ne mën nañ ko cee condamné parce que li ngay wax nii li ma ci li li tax ma dëggal ko 2011 bi Ablaye Wade président Ablaye Wade di wax ni mën naa nekkaat candidat ah. conseil bi toogoon ah. dëggal ko valider bàyyi mu jàll ba léegi ki nga xam ne mooy baaxee woon président Macky Sall doon ah. doon déglu li muy wax nga jàllale kii tey ñoo fi ne même justice bi même dossier bi ñi ci nguur gi mën nañ ci tëj kii fi nekk tey di opposant opposant bi bu yégee même dossier bi duñ ci changé virgule de même juge yooyu danañ ci tëjaat ñii fi nekk ñoom sax dañ la koy wax dañ naan la saa waaye bu ngeen sàgganee ba mu toog da leen tëj waaye saa yi ban ju mais loolu du justice dañu waxante dëgg ma euh, sëñ Mbacke Ndiaye waxoon na ko bu ngeen def doole ba ba ñëpp la ñuy tëj ah, ah. loolu mooy ku fi toog mm-hmm. yow yaay justice fi mu nekk nii Sénégal jamono bi mooy li neex Macky Sall jamono Ablaye Wade mooy li neexoon Ablaye Wade. waaw dëgg la keneen kii ñëw bu dee nii lay continuer justice mooy li ko neex. xanaa moom mu am courage wu. changer ne justice bi nii muy doxee jaadu. may indépendant daal nañ ko changer may leen ñu indépendant. Hmm. donte indépendance bi bu mu nekk total nañu leen tënk ñoom it parce que ab juge boo xam ne mën ngaa àtte nit. teg ko li la neex du dëgg te yow kenn du la daan loolu tamit c'est pas normal. d'accord dañ leen a war di àtte. macha allah juge bi ci àtte lu dul yoon war nañu ubbi bunt bu ñu la mën a àtte. ayca jërëjëf Imaam kon ci jàngat bu am solo boobu nga xam ne def nga ko ci mbiru eh, Ousmane Sonko ak yu ni mel xam naa daañu fi dellu si waat ci yeneen jataay ndax Ousmane Sonko moom. Mhm. yoon may na ko mu woor ak yooyu xam naa ni comme daa tawat moom mën naa am du mhm. woor te <laughs> nee nañu war nañ koo génne. <laughs> Mhm. léegi eh, eh, maanaam convocation yi bari na nag. Ah. Cheikh Omar Diagne woolu nañ ko Karim woolu nañ ko Clédor ñi ngi yëg ni woolu nañ ko. Mhm. te xam naa dàmbooj mën naa amoo ci topp ndax démb dëggal na ay propos nee na. Mhm. li ñuy wax bañ tee leen man loolu laa wax ñoo ko bokk waxandoo. Mhm. dafa mel nag Sénégal dañuy bañ maanaam appel à. Euh, xam nga lan waaw xam nga trouble à l'ordre public la ñuy bañ. maanaam imaam tey bu toogoon daan ne waaw Sénégalais yi dañ jóg jaay seen bakkan maanaam ak Sall bu ñu ko bàyyee noonu. ñu ni imaam dafa woote. ndax jar na ko. ñu leen di woo ak ndax gaa ñoo wax lu ëpp. waaw man jàpp naa ne waxaguñ la ëpp mais dañu nekk ci nguur goo xam ne dafa tiit booleeg di wane dooleem. Hmm. waaw man loolu ci li ma soof la bokk mooy nguur gi dafa toll ci wane ne man damaa am doole. Hmm. damaa am doole di tëj di jàpp ci léeg-léeg lu ñàkk fayda. Hmm. sooy bu ku dem léegi bay topp ay page Facebook di xool ay publication di tëj nit ñi. <laughs> di jàpp ay nit yuy reetaan ngay tëj. di jàpp ay nit yi partager ay. journal yu jalgati xibaar. Ah. nga jàpp tëj. te dañu woon audio de preuve ci wàllu dossier. mënta tëj loolu mooy da nga tëj kaso bi di tëj tëj tëj ba mu fees mais gisuma lu jaroon ñii ñu arrêté leen. Mhm. lu dul nag. dañoo def discours bu tàng buy wane ni ñun danañ taxaw. Mhm. wàcc ci mbedd mi mais bàyyi leen bañ taxaw ba wàcc. Mhm. cest à nit bu annoncé ne dinaa wàcc bàyyi ko ba mu bu wàccee nga jàpp. d'accord <laughs> mais wàccagul. Ah. dafa annoncé ne dinañ wàcc. ah mais ki annoncé ne imam ni dañuy wàcc nag. waaw kooku mi ngi ci pexe wàcc de. waa mi ngi ci pexey wàcc mais tant que de mais sooy man su ma toogee fii ne suba dinaa sàcc te sàcc gu ma waruñu maa jàpp. waaw dañuy xam ne imaam bi am na intention sàcc. intention sàcc du déli wax dëgg yàlla du déli <laughs> intention sàcc te sàcc gu du déli <laughs> te ñi ma gis ñu koy wax. puissance boobu amuñu ko. puissance bu yëngal réew mi. Ah, amuñu dégg naa la maanaam Karim amul doole. yëngal état yëngal réew mi. wax nga dëgg de. Karim Cheikh Oumar Diagne. Euh, Clédor seen ay combattant lañu. Mhm. mais nag amaguñu public boo xam ne buñ la jóg leen ñëpp jóg. loolu li ci Sonko am ak néew sax ñoom amuñu ko. mais xëy na influence bi lañuy bañ. maanaam influence yi jeunes yi influence boobu nag. Mhm. maa ngi gëm ne ñoom ñoo ko nar a créer. Mhm. maanaam état bi jàpp bi muy jàpp di tëj di jàpp di tëj di jàpp di ci tëj. ci lay ubbee combat yu baree bare yoo xam ne. déjà tey lépp lu bokkoon ci mouvement activiste yi nga activer leen am na keneen pour jàpp dégg naa impôt et domaine. Mhm. waa impo ña ngay menacé nee na ñoom dinañ wàcc jigéen bokk ci combat bi bu demee ba syndicaliste yi impôt et domaine di administration ne ñoom danañ wàcc jigéen bi bu ñu bàyyiwul waa jooju. Mhm. jàngalekat yi moo door di gis nga tey jii tàmbali nañ débrayage. Mhm. ne nañ école bi foog ñu yëngal ko foog ñu bàyyi jàngalekat yi nu téye. politiciens yi bu ñu defee noonu ñeneen def noonu cest état bi muy mujj këriyel boppam ay combat yu bare bare yoo xam ne li daloon Ablaye Wade 2012. Mhm. jàngalekat yeeg médecin yeeg sëriñ saak imam yaag ñépp ay sëmbaxandoo dal ci sa kaw yow yaay mujj këriyel adversaire bu lay daaneel ci suuf. d'accord moo tax man jàpp naa ne nii ñu xiirtaloo ci ñii di leen tëj di leen jàpp amul benn chance. amul njëriñ nañu bàyyi nit ñi wax seen xalaat. Mhm. Sidi Lamine moo daan wax ni. Mhm. bàyyi leen nit ñi wax. Mhm. cin li mooy bax. waaw cin buy bax day ànd ak coow. Mhm. soo bañee mu tuuru nag dangay ngay fël gi tuuti mu ubbeeku. Mhm. loolu mooy foog nga may nit ñi ab ruq bu ñuy waxee seeni soxla. yow tee nga RTS na kenn du fa wax. waaw yenn télé yi fexe nga ba téye leen ne kenn du fa jàllale benn kaddu bu neexul nguur gi. Mhm. réseaux sociaux yi la gars yi am di fa seen i kaddu. mais yaa xayti bàyyi leen ñu coow bu ñu paree ñu dellu seen i kër. vraiment man ñi ma gis ñu fii coow da ngay gis ñu am meeting coow soo soo soo ba mu jeex. Mhm. ñu dem ñibbi mais loolu ban problème moo fi vraiment te ku mel ni Cheikh Omar Diagne dal na. Mhm. naa ne état bu àndoon ak dal tuuti. réew mi jàmm rek lay am. d'accord mais acharnement bi daal ëpp na te ñooñu tamit ñu ngi leen di masawu bu baax. macha allah muy Cheikh Omar muy Abdou Karim muy Kaledor Mhm. parce que ñoom nekk giñ ne ci naaj wi ñun moo ñu ba ci kër gi tey. waaw ah, dëgg la ah, ñoom lii ñuy xeex du seen doom du seen i wayjur du seen i bopp mais askan wi la ñuy xeexal. d'accord yal na leen yàlla sàmm te jàppale leen. ami incha allah ah imaam ñu mujjee ko ak euh, point bi euh, mujj xam naa ni Modou su fekkee nii euh, sax élément bi uh, jege na ko mën nañu cee mosal as lëf rek pour ñu gën a mën a xam li ñuy waxtaanee ci daal am mbokk mu wax ni daal nangam nangam ci Ousmane Sonko Modou bu dee jàppandi nañu dellu si waat. ku toll nii El Mali nga mën a jëli koo xamante ni c'est un vulgaire violeur. c'est un nga di ko teg ci seen place. loolu mooy ñàkk xam dëgg-dëgg ñi la yàlla jox. xam ngeen loolu mag ña bu ñu dellu si waatoon danañ jaaxle ci jamono parce que danañ wax ana Sénégal ban Sénégal léegi ban Sénégal nga attan leen faa teg ca seen place nga xamante ni waxuma la dara waaye seen dal sax xanaa mënuñoo nga dégg mu waxe noonu réew moo xamante ni alaaji Maalik Sëriñ Tuubaa xeex nañ ci dëpp xeex diine seeni woot nekk ci boobu voie ñu ngi fexe mbaax googa lu ko yokk yow nga ñëw amoo looy teg lu dul dem seeti un vulgaire violeur vulgaire violeur vulgaire violeur nga teg ko naan ñii moom a gën a waaw ku dee naan boo dul gis bay xool des fois bu ma la kiyee rek kii ma boo gën ñuy kii di kii voilà euh, imam mhm. euh, ñoo ngi euh, wax na comme li ñu waxoon ci suba rek maanaam mhm. photo bi nii la ko gars yi ci internet bi mhm. te da defe naa ne croix bi sax xëy na dañ cee bëgg wane seenu mer rek. Mm. waaye croix nit ki du tax. waaw maanaam yokkul ci nit jëmmi nit ki dara. xam naa kilifa gi ñoo ngi koy jégalu lool di wax ni du solution moo croix foto bi waaye nii lañ jëlee foto bi ci internet bi. Mm-hmm. léegi nag imam mm-hmm. atte njaalo dinañ ci ñëw. waaye d' abord noo jàngatee kilifa gi lii mu wax ci Ousmane Sonko ñu doog a ñëw ci atte njaalo. waaw moom day mm. xam naa wax ji li tax du mën a yaatu lu bëri mooy tuddul tur. Mm-hmm. en plus wax ji dafa am fu mu jógee ñëw. waaw muy dafa am ko wax ni. Ousmane Sonko. bakkanam moo ñu gënal bakkanu. Oh, kilifa diine boobu maa ngi ko doon seetaan. bi waa ji waxee loolu tamit man jàppoon ne benn dof buy wax mooy wax ni waaw waaw ne kii di wax moom. benn dof la mais man nag dama jàpp ne kooku li mu doon wax. Mhm. amul lien ak Ousmane Sonko. vraiment. la mu doon wax. Mhm. engagé wu ko te yoonam nekku ci. Mhm. jàpp mu ne moom la ko waxal it nag. du porte parole amul luy firndeel ni ci moom la bokk. Mhm. amul luy firndeel moo ko wax loo mën na nekk sax noonam. Mhm. mën na nekk sax noonam boo xam ne. Ah, ah, ah. bëgg koo yàqal mën naa tax mu ñëw ne xaaral ma mhm. waxal Sonko loo xam ne. kilifa yëpp dañuy jóg attaqué ko moom. pourtant saa njóogu bii la am. wallaay mën naa nekk. loolu loolu képp ku xam stratégie guerre. dañ koy def mooy da ngay jël ay éléments yóbbu ci sa adversaire mu jël mbubbam. di la fa juyeel yow yi nga bëgg mu am fa te nekk fa woon nga di ko fa def. d'accord ah, te fekk ma nga ca waajee yow di la attaqué. Ah, fekk yow lay liggéeyal. waaw mais Sonko moom dafa nekk ci benn cadre bu tudd Pastef. Mhm. cadre boobu ña ca bokk ñu ñu xam lañu. Mhm. am na ñu ñu def seen i porte parole ku mel ni El Malick tey bu waxoon wax ju mel noonu. Mhm. wala ay Bassirou Diomaye fay wala ñeneen ñi ñuy yebal ci plateau yi ñu koy def. Mhm. su boobaam mën nga ni lii mën na engagé Pastef ci kaw kii wax bi muy wax ne wax jii may wax man la engagé bu dee loolu la wax. Mhm. engagé wul parti bi bu dee parti bee ko wax loolu nag waaw moo tax. Uh, pour man bépp wax bu ñu war a attaqué Sonko mooy wax boo xam ne. dañ gis ne parti bi moo communiqué def ko wala kenn ci porte-parole parti bi mu def ko wala Sonko waxal ko boppam. Mhm. ndax benn waay bu taxaw fii ci Facebook am rek di live daal di wax Sonko moo ëpp Pastef. Mhm. cest à li mu représenter ci réew mi. waaw Pastef représenté wul lool. la man jàpp naa ne Pastef benn parti la bu discipliné. buy topp ay règle mën nga wax sax ci parti yi gën a discipliné la bokk mais ay sympathisant am nag. Mhm. wala ñi koy supporté ci biti moom. Mm. dafa am désordre total. d'accord. mooy ñi ëpp ñi koy xeexal. Mhm. boo seetee doo leen fekk ci biir parti boobu ñu nekk. dëgg la léegi nag su fekkee kii wax mënuñu identifier ni ci parti bi la bokk. Mhm. la muy wax waruñ ko woon a coller ak Ousmane Sonko. dañu jàpp ne benn waay moo taxaw ci mitinu yeewi askan woowale. xalifa mhm. Sall ma nga fa woon. Euh, Déthié Fall nga fa woon. Ahmed Aidara. Habib Sy ma nga fa woon Ameth nga fa Barth nga fa Mimé nga fa xoolal leader politique yëpp nga fa. waa ji kenn xamu ci ban parti la bokk. Mhm. lu tax bi mu waxee loolu ñu jàpp ne ci Sonko la bokk. vraiment dëgg la xëy na nag moo tudd ne Sonko bakkanu Sonko moo nu gënal bakkanu xalif généraux yi. Mhm. mais su boobaa moom ngay attaqué moom mi wax loolu mais pas nga attaqué Sonko. wax boobu jàll. atte njaalo bi sëriñ bi ñëwee. Mhm. wax ci moom it wan ko ne ko ki ngay waxal. ab violeur la. sëriñ bi tamit am na code bi mu def mooy tuddul turam <laughs> mooy tey boo. boo bëggoon a condamné sëriñ bi ci li mu wax nga ne ko ki ngay waxal. Hmm. mu ne la man tudduma turu kenn. Ah, waaw damaa wax sànni. nan nga def ba xam ne moom laay waxal y a hmm. léegi nag jàppoon naa ne tamit waruñu woon a jël photo Sonko ñu collé ko ci. Ah. am na ñun fi jii ñoon viol. waaw ba condamné leen. ay journaliste. ba condamné leen ak doomi journaliste. waaw xëy na nag kooku ampleur boobu amu ko mais. Hmm. le fait que ñu jël photo Sonko taf ko ci dëgg la nag wax ju yegg dafa ko moom. dëgg la am ñoo xam ne dañuy xalaat ne wax ji comme kee lay tontu. Mm-hmm. wax ji kooku ko tax a jóg. mais comme tuddul tur. d'accord doo ko mën a ne ci côté Sonko. léegi nag bu dee àtte njaaloo moom. waaw àtte njaaloo. Mm-hmm. kudul ki ko def. mënu mm. koo prouver ci kaw suuf. Mm. képp. li lislaam wax ne moom ngay fekk nit njaaloo nga sañ ko wax mhm. mooy ñeent ñoo xam ne ñooy bett ñiy njaaloo ñu tëdd pas ñu sangu wala ñu tëju ñoo leen fekk ci biir néeg bi ñu tëju ñeenti nit ñeent ñoo xam ne du ñu wax ne dañ leen fekk ci néeg bi du ñu wax ne dañoo fekk ñu sangu mhm. foog nga fekk leen ñu sàgganu mhm. nga gis ñuy sëy nii mu leen la awra ak awra parce que ñoom ñaar mën nañoo bokk sangu te fekk sëyuñu si góor gi mën naa tëdd ci kaw ku jigéen ki mhm. te fekk awraam duggul ci biir njaaloowul de dëgg la ah. Ah. góor mën naa yéeg ci kaw jigéen tëdd ci kaw moo civilisé de ah te njaaloowuñu mhm. yow na fekk góor gi tëdd ci kawam mhm. après nga ne dañuy njaaloo wala ñu tëju ci néeg rek wala ñu tëju ci néeg bi nga ne dañuy njaaloo mbaa ñu bokk ab séer sàngoo nga ne dañuy njaaloo yow l'islam dalay caw danaan la ndax gis nga awra wi dugg ci biir nga ne déedéet dañ lay caw mais gis naa mu yéeg ci kawam ñu ne mais tëdd ci kaw ak njaaloo du benn Mm-hmm. njaaloo awra moo koy def si laal jigéen bàkkaar la mm-hmm. mais njaaloo beneen àtte la moo mm-hmm. tax kenn mënu la ko wax ci àddina lu dul ki njaaloo mooy ñëw ne man damaa njaaloo caw leen kon l'islam daal ko nit l'islam protégé na couvrir na nit ki ci façon bu ne sëñ bi deru doomu aadama Shuayb <laughs> deru nit kenn waru ko yàq ci maali foro macha allah moo tax droit de l'homme dëgg mm. l'islam moo ko jàngale heure boo nee diw mii njaaloo kat la mm. te indi woo ñett ñu la accompagne ngeen wax ni yéen a gis awraam mu dugg. Hmm. dañ lay caw juróom-ñett fukki yaar. macha allah te loolu protéger nit rek a tax lislaam def ko. jërëjëf imam Babacar Sylla jërëjëf mbokk yi doon seetaan imam euh, sënkam am nañu 39 euh, minutes. Ah. Euh, presque quarante minutes yoo xam ne kii nañ ko te ñu ngi waroon def trente jàpp trente cinq sax laa ñaanoon Modou waaw euh, xaabaabal nañ bu baax a baax kon ñu jox dig daje ba altine lan ngay tàggoo di wane itamit biir koor gi waaw incha allah incha allah nan ñu mm. xaar ci programme balaa ñoo woor dinañ xam yéen bés ngay def euh, mm. xaar fii ci programme koor gi fii ci solution TV. Mhm. danañ ànd ak yéen ci ay tafsir rek programme koor gi daal incha allah dinañ ci fës. incha allah ñaan yàlla mu may ñu yeggale koog jàmm jaajëfal la nag bu baax. jaajëf bu ak groupe solution yëpp. incha allah ñaan liggéey bi jëm kanam. amin incha allah jërëjëf imaam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di nuyu waa daara ja foofu la ca cité Sonatel bu Malika di ko gërëm bu baax ndax ab taxawaayam ci cité Sonatel li ñëpp wax dëgg yàlla xam nañu ko tamit ci wàll yëpp ba ci ñu féete ci côté politique bi ñëpp naw nañ ko ci ay discours am euh, fa mu nekk di xutbaat gaa yu bëri dañuy bàbbeekoo fu nekk dem di seetaani ay xutbaam dama fay gis côté état dama fay gis opposition bi ñëpp dañuy ñëw di ko teewlu si ngir am solo gi mu am solo euh, ñu bari naan sax imam actualité ndax ni nga xam ne noonu lay jëlee mbir yi actualiser ko euh, indi ci xalaatam indi ci li ci diine wax kon jërëjëf imam mbokk yi gërëm nañ leen gërëm moo Modou Diouf moo doon réaliser émission bi Ablaye Diallo moo nekkoon ci son bi Abdou Top moo nekkoon ci montage yi gërëm maale bu baax sëñ Fallou Gumba la moom tamit euh, montage la monteur la bokk jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.